depuis ba école bi ubbiyee ba léegi mu am ñenn ci élèves yi nekk foofe ci lycée Limaamu lay bu Géejawaay di jànkonteel ay jafe-jafe yu ci mel ni yu ci mel ni ay classe yu manqué loole nag dara waralu ko lu dul liggéey bi nga xamante ne moom la ñu amal foofe ngir rekk mën a tabaxaat yeneen salle de classe situation bi nga xamante ne daanaka indi na ay jeexital ci wàllum njàng mi ak njàngale mi foofe mais am na élèves yu bëri yoo xamante ni moom affaire bi sonnal na leen dina am ay gàllankoor bu ñu sañoon moom day jeex ci vacance yi waaw au lieu que ñu koy def ci biir année scolaire bi. gis naa ne ñoom presque pour la plupart tàmbalee gu ñoo jàng parce que saali indisponible mën naa ne metti na parce que ñëpp bëgg a jàng. soo nekkee élève moom jàng rek moo la war soo ñëwee nag te fekkoo saal yuy jàng moom day xaw a métti. Sakura Diagne mi nga xamante ne sax daanaka am na lu toll juróom fukki at parent d'élève waaye it professeur de lettres ci établissement boobule di nakarlu situation bi ni mel. nga ni école bi ubbi na boobu ba léegi waaye école bi moom nekkatub école mën nañ ne ab chantier la. te loolu li ko waral aussi dafa xaw a neexul a nangu daal ndaxte école daa am jamono yoo xam ne day tëj am jamono yoo xam ne day tijji kon waruñu woon a xaar ba xale yi war a tujj lépp ne këtt ne jon ñu dugal si at autorité yi ci problème bi naka noonee ñoom ñii le di woote wàllu ngir rekk autorité yi ñu mën a saafaral jafe-jafe yi lee autorité yi nag mën nañoo accélérer travaux yi rek ñu gën koo gaawal et aussi ñu wut suñu mënee wut yeneen école yoo xamante ne mën nañoo prêter ay salle aussi dina si baax ñàkkum karange bi waaye it installation anarchique yi nga xamante ne ñu ngi leen di nemmeeku ci wërndal lycée Limam Lay bu Géejawaay nekk beneen problème bi nga xamante ne faaw rek ñu taxaw ngir ñu saafaral ko. yaa ko gis fu am lu mel ni sécurité du fa am fu am lu mel ni dafa lëndëm dafa leerul te Limaamu Lay mérité wul loolu. lycée Limaamu Lay bu Géejawaay bokk ci établissement yu gën a xarañ fii ci banlieue bu Ndakaaru jamono ji ñu ngi fay amal ay liggéey ngir tabaxaat ay yeneen salle de classe waaye situation bi le indi na ay jafe-jafe ci wàllum njàng mi ak njàngale mi ci yeneen ndongo yi